waxtu toxtal fanweeri simili mbokk yeeg xayti ñu seetaan da leen jàmm ci xibaar yi li ci gën a fës mbirum Bamba Fall ak ñoñam eh, jamono ji caabi féete leen ginnaaw ndax dañ a tëye ci ab enquête bu aju eh, ca la xewoon foofee ca maison du parti ña leen di layool dañoo mujj gedd bokk na ca la ko waral nee ñu atekat ba da leen a tere daal maanaam li nga xam ne moom mooy eh, ñu wax loolu ca lañ jugee daal di gedd lu ci maanaam Bamba Fall ak ñamu bokkal parti ba ñu joxañ leen baaraamu tuma ci mbir mi beneen retour de parquet di ñetteel bi yoon lañu leen jox te yooyu jamono Barthélémy Diaz bokk ci parti socialiste moom la muy euh, ñaawlu rek mooy kàdduy procureur aju ci euh, ñu muri mbalaanum kiirlaay bu Aminata Diallo nekk député ca pencum ndawi réew ma ca Médina moom jamono joojee itam ñuy téye Bamba Fall enquête ak yu ni mel euh, liggéey ba ma ngay dox ca mairie ba terewul nag ñu fay liggéey seen xel ak seen xol yépp ne ñu ma nga ca seen njiit naka noonu itam askanu Médina baykat yu jokkul ñu bàyyi leen bàyyi néggandiku gannaaw bañ leen yàqu-yàqu yu ñu indi woon yoo xam ne benn société euh, fekk baax fa la ca Inde ndax dañu ko jox ay euh, tool suuf soo xam ne toll na euh, ci junni ci ay hectare Mamadou Ndoye bu LDMPT ñenn ci ñoo xam ne dañoo bokk ak moom parti ba bokkoon itam ca ñu ñu téye woon naqarlu lu ni mel ba mu demee seeti leen liggéeykat yu ISRA ñoom it ñenn ña tey dañoo xëy amal toogaanu ñaxtu lañuy ñuy ñaawlu nañu nekkee di liggéey bu metti ba noppi itam ñu dañoo toog juróom benn weer yoo xam ne kenn seeni payoor niñ ko baaxoo di def ju ne Mouhamadou Papis Diaw taxaw seetlu ci chronique bi euh, tey jii mu wax ci limu député ñu fa yéene yokk ca pencum ndawi réew ma mbokk yi li mooy ponk yi fi gën a fës ngeen taaxirlu ñu faram fàccee Fall ak euh, ñu mu bokkal parti bi ñu téye leen euh, ci lu aju ca la xewoon ca maison du parti daañu fa toggaat ba altine euh, ndaxte dañoo mujj daal di jox troisième retour parquet ñoom nag li bokk na ci li ko waral ñi nga xam ne nag ñoom ñoo leen di layool dañoo daal banque seen yoxo maanaam gedd mbir mi lu tax ñu gedd ne ñu doyen des juges da leen a tere ñu wax loolu nag la ñu naqarlu ba fa naqarlu yem lu ci mën a am moom altine maanaam weekend bi yëpp bàmba ak ñam àndal mbir ma maanaam ña ñu tuumaal ca la xewoon ca maison du parti ci loxo yoon la ñu des maître El Hadj Diouf la ñuy teewlu ak Pape Fara ñi ngi jaafara ba dossier bi li ci am ak sos Sénégal xam leen ni sos sos rek moo moo tënk dossier bi li tax a jóg dossier bi mooy rey ki nga xam ni yéen a bokk ndey yéen a bokk baay ndax yéen a bokk parti waaye ko bokkul la gis-gis ci temps yi il faut rek nga suul ko. te eh, gars yi lii métti na lii du yëfu gor du yëfu jom mani Sénégal du nangu ñu noot beneen sénégalais avocat yi ànd nañ ni boo ñu mayul ñu wax boo ñu boo ñu bëggee def ay ay ay ñu toog fi di la xool ngay def lu la neex ñu abal la avocat yi décidé kon comme juge bi nee na moom day teg tànkam ci loi bi faalewul loi bi du mbay avocat yi ñu wax li ñu war a wax mooy laaj liberté provisoire wane ne nervi yi kenn nekku fi ñi ngeen jàpp kenn defu ci dara tous ñu ne mu ne maa bañ ñu ne comme yaa bañ rek comme yow da ngay violer loi bi yow en tant que juge comme yow faale woo ñu ñun tey jii ñun faale wuñ la ñu ngi dem suñu yoon wan la ginnaaw te buñ ko wanee ginnaaw xam na ne loi bi mayu ko comme dafa ne assassinat la mooy ay crime yoon mayu ko mu laaj kenn dara ci avocat dekkul ci wetam. loolu tax juge bi tey mënutoon a continuer mënutoon a oo ñoom Bamba Fall dafa obligé dàq mbir mi ba altine ba tey ci mbir moo mile keneen ku ci wax di euh, Barthélémy Dias moom nag la mu gis rek mooy pencum ndawi réew ma daal euh, kenn du ko def na la neex maanaam euh, di ca jaare di faj say soxla leneen itam lu mu xam le nee na procureur du moom mooy ki war a sàkku ñu muri mbalaanum kiirlaay bu soxna sii Sidi Aminata Diallo bokk ci parti socialist dañuy teew lu Dias ak Alhassane Ba ak Younous Diatta procureur de la République dafa laaj ñu yëkkati lii di immunité parlementaire u honorable député Aminata Diallo ñu ngi koy ñaawlu parce que dañu nekkul ci cla ci cas de flagrant délit bu ci tegu tamit euh, lu jotoon xew maison du partie socialiste amul kenn ku ci gaañu ñit mën ci teg bëtam amul benn deret bu fa tuuru amu fa ñit bu fa ñàkk bakkanam luñ ci bëgg a wax tamit mooy lu tax ñuy gën a ñaawlu euh, li di taxawaayu procureur de la république biig rek fële ci euh, Fatick ay ndaw ñu bokk ci APR ñoom dañu daal di taal dañu taal siège u APR euh, safara nag taal loolu dafa bokk ci lu ñuy woy crime. pour ñu mën leen noot il faut que ñu mën a utiliser ay institutions yu mel ni assemblée nationale. mën a dindi seen immunité parlementaire pour indi leen fii kanamu procureur pour ñu mën leen toroxal. jamono ja yoon teye Bamba Fall di def ay enquête ñu doxantu ba ca mairie ba Médina xam ngeen ne foofee moom la ñu tabu mu jiite leen dañu fa gis mooy liggéey ba ma ngay wéy terewul nag liggéeykat yenn seen xol ak seen xalaat ma nga ca seen jiit askanu Médina itam naka noonu mbir mi daal neexul seen xol benn yoon Maimouna Ndiaye lañ ci ànd ak ak Léa naa ñoo fa doxantu. fukki waxtu ak benn ci suba taftal fanweeri simili ci mairie bu Médina fii nag boo fi ñëwee nga xam ni am na lu fi soppeeku bu baax ña ngay liggéey naam léeg-léeg ñuy waxtaan wante ba léegi seen xol neexul. situation bu métti pour euh, mairie bi ak pour Médina yëpp parce que Bamba doomu Médina la nekk au service de la Médina jour bu ne jour bu ne mi ci terrain bi. ay investissement ay rencontre di assister la population donc bu demee tey ji bañ téye ko dematul ñëwatul dinañ métti trop. métteel la ñu wax mu dem ba feeñ ci seen xar kanam. kenn la ci ñun kenn ci ñun te mooy sooklu institution bi bu fa nekkul dana am lu ñu métti fan la amee kër këru politique la amee mu am ay cose politique donc waroon na mën a doon un règlement politique. mbir mi politique moo ci lalu am déet lu mu ci munti doon. doomu Médina yi bett na leen torop. waaw dama nag d'après ni nga doon waxee ah ni fii turam di yegg gaa man nag sequñu dara gaa defuluma dara man nga def Médina dëkk waaye nag koo gis mm, nit muy def bien si sa quartier suñ ko su dara amee dina la metti daal. képp ku juddoo Médina yaroo midinaa màgg fi boo dee ilimaanu jàkka metti na la soo nekkee jàngalatu Alxuraan metti na la su fekkee ne danga doon notable si dëkk bi metti na la jobot yi metti na leen. ndax Bamba dafa ñëw si Medina suñu doom yi liggéeyuñu woon kër gu nekk boo demee am nga fukk njaboot ak juróom koo xam ne kenn liggéeyu si Bamba jël na jigéen ñi jël na xale yu góor yi ñëpp ngi liggéey. muy ca mairie ba di ca askan waa fa ñu féetee benn seetlu bi naam ña ngay woyal seenum liggéey wante am na lu bari lu soppeeku ci ñoom bàmba Fall lim fi newul dis na gann ci ñoom. mun a Ndiaye jërëjëf ñu des ba tey ci wàllu yoon ak euh, yoonal ak euh, la xew fële ca jokkul ay baykat dañu leen téye woon mujj nañ leen a bàyyi bàyyi négandiku euh, bokk na ca la taxoon ñu bàyyi leen nee ñu dañoo demoon daal andi ay yàqu-yàqu ci loo xam ne benn société bu baawoo fële ca Inde moom moom moom lu mel ndax dañ ko jox junni ci ay hectare loolee moo leen neexut ba ñu doon wane seen naqar lu ci mën a am Mamadou Ndoy bu LD demoon na seeti leen ndax ñenn ca ñoom dañuy ay militant bu LD e bi mu faroo dañ koy koy ak Thierno Fall. ñi waroon ñëw tribunal ñëwuñu tribunal ñi waroon ñëw tribunal mooy ñi jël suufu jaambur nangu suufu jaambur xëy na am na luñ ci séentu ci suufu jaambur yooyu ba ñu joxe ko ñooñu fekk nit koo xam ne dafa am ay lu muy dunde ay téeméeri téeméeri nit loo xam ne ak ak seeni njaboot lañuy ñuy dunde nga foqati ko ci ñoom ñoo ñooñu lañu waroon yóbbu fii ci tribunal bi tey waande Sénégal dafa mel ni dëkk buy doxe bopp léegi ñi nga xam ne ñooy def njaaxum ji ñoom ñooy yóbbu tribunal ñi nga xam ni seen njaaxum yi moo metti ci ñoom loolu lañu gis tey sa lool nag war nañ ko xeex ba mu jóge ci dëkk bi ñu wax ci beneen ponk muy laaju ci yokk njëgug euh, ciment gi ca diwaanu Tëngéej moom foofee xam ngeen ne usine ciment yaa nga fa euh, moo tax nag ñi nga xam ne ñoom ñoo koy jënd daal mbir mi euh, da leen a xaw a bett rawatina nag jamono ji ñi ngi wax naan ñetteelu cimenterie daañu ko fa taxawal Ousseynou Thiam ak Bira Diagne lañ ci àndal ci barab yi ñu jaayee ciment yëpp daanaka yokk gi nga xam ne nii nag annoncé nañ ko daanaka door nañ ko junni ak téeméer ak juróom-ñetti fukk ci tonne bu nekk ci kàddu yi ñi nga xam ne nii ñoom ñooy cotataires yi ak ñii di revendeurs yi. mu noonu nag yokk goo xam ne gii nag ñii di consommateurs yi ñoom daal rafetlu wuñ ko benn yoon. dugub ciment bi ñu yokk vraiment jaaxal mooy mooy li nga xam ne du nouvelle bu neex surtout ci ann bu bees bi ñu dugg te loolu daal méngoowul ak par exemple di Sénégalais yi doon xaar par exemple ci at mu bees mi. te amul sax lenn loo xam ne nii war naa mën a firndeel yokk boobu ñu yokk ciment bi. donc euh, day metti trop trop ci ñi nga xam ni déjà commencé guñ sax bay tabax wala ñu nga xam ne ñu ngi war a fondement bay tabax loolu lu metti la vraiment war nañ mën a seet naka lañ ko mën a réduire ba ku nekk am ci accès mën a jënd vraiment njëg bi nga xam ne moo lay arrangé. mais mënuñoo neex mënuñoo neex augmentation mënuñoo neex mënul neex kenn d'autant plus que il s'agit d'une augmentation boo xam ne bii. dafa yegg si benn moment boo xam ne mi man c'est c'est un petit peu mu doon ay consommateurs yu doon xaar sax ñu wàññi lii di njëgu ciment bi waaye nag xaaruñu woon benn yoon lii di yokk ko. bi consentir benn diminution du de des de la Sococim ah des impôts de la Sococim kon nag waroon na ci mën a profité pour essayer au moins aider euh, dimbali état bi ci politique boobu muy def. am nañu ñetti cimenterie fii Sénégal kon bokk lu ñu doon war a xaar kay moo ñu wàññi prix ciment bi mbaa pare ñu yokk ko. te sénégalais yi vraiment te prix pétrole bi wàññeeku na. amul benn intrant yu bees yoo xam ne ñëw dugal na ci fabrication ciment kon boog daal amul dara loo xam ne war naa mën a firndeel yu yokkatu ciment bi. ci wàllu lii di cimenterie bu Tëngéej bi nag fexe nañ cee jokkoog lii di service commercial bi waaye mujjutu antu ca geneen wàll kii di directeur général bi nga xam ne bii jamono yi weesu nag interpellé woon nañ ko la mu ñu tontu woon rek moo di Sénégal bokk na ci dëkk yi gën a yombale njëgu ciment fii ci Afrique sowu jant. Ousseynou bu nu jugee ci ciment bi ak njëg gi nu yokk dañuy wax ci liggéeykat yi bokk na ca ña nekk fële ca ISRA ñoomee euh, dañoo xëy mer ba futt amal ab ñaxtu la ñu mer nee ñu anam yéen wuy liggéeyee neexu leen benn yoon ba noppi itam bu weer wi deewee dañuy dajale seen i payoor maanaam juróom benn weer a ngi nii tàllalu ñu seen loxo euh, seen njaatige teg moom njaatige googe wax na ne bu fee ci bërëb ba dañoo soppi doxalin dañ ci ànd ak Ousseynou Diop abib Habib liggéeykat yi nekk ci ISRA ak seeni directeur général bile jubboowatunu loolu moo tax ñoom liggéeykat yi amal sitting ci bërëb bi ñu ni jafe-jafe la ñuy am ci wàllu sécurité bi mur yi dafa daanu waaye tamit ñoom liggéeykat yi léegi ay jafe la ñuy jànkonteel. ISRA gii ngay gis ni dégradé na lépp yàqu na. te moo ngi fii toog boo ko ne nañ defar lii mu teg fi ay ODP ak yu kenn xamul yoo xamante ne dara du génn loo bëgg a génne ci centre bi pour dépendre dara wala dem defi sa liggéey wala def li la war doo ko mën a def parce que waa ji da lay bloqué. ci bërëb bañ doon amale seen ndaje bi ak taskatu xibaar yi fa la directeur général bi génnee moom nee na rigueur bi nga xamante ni teg na ko loolu du ko wàcc. xanaa kay ñi nga xam ne dañoo tardé ñoo ñoo mer mobiliser ñeneen ñi pour yóbbu leen ci loolu wante kuy grève kay doo grève parce que dañ la wax xëy xëy xëyal da ngay grève parce que yow weer wi dafa dee fay ñu la wala nga grève parce que dafa am condition yu metti wala nga grève parce que euh, dañ la wax dara man waxuma leen dara. li ma wax daal mooy nañu xëy si heure wàcc heure. ñoom liggéeykat yi di jooy beneen jafe-jafe di juróom benn weer yoo xamante ni ñi di ouvrier yi toog nañ ko ci jotaguñu seeni payoor. waaw ah, ouvrier am nañ jafe-jafe waa seet nañ desee ngi nii juróom benn weer kenn fayu leen six mois ñoo ngi nii taxaw six mois kenn fayu leen boo waxee mu wax lu ko neex moom daal lu ko neex loolu lay def loo xamante ne li neexu ko du jàll. te ñooñu dañu nekkoon dans le cadre d'un projet projet boobu moo jeex léegi y un choix soit ñu dàq leen. soit ñu jox leen suuf ñoom ñuy bay ñu am lu ñu leen fayee te loolu proposé nañ leen ko bu sottiwul ci ñoom la. lu ci mëntaam am ISRA bu Ndar moom jamono jile liggéeykat yi ak seen i directeur général seen i kàddu méngoowatul ñoom liggéeykat yi nag ñu ngay ñaan ñu daal di indi saafara boo gën a gaaw ci lu jëm ci wàllu jafe-jafe boobu directeur général bi ni moom fa mu teg tànkam du ko wàcc ndaxte la ñu ko sas jëm ci wàllu plan Sénégal émergent loolu lay wéyal. Ousseynou Diop ñu sant la gërëm la wax ci leneen ak amica amical bi lëkkalee éducateur spécialisé yu Sénégal moom nag ñaaw euh, ñaawlu na dara daal li nga xam ne moom la dogal bi euh, di jëwriñ muy dénk wàllu yoon ak yoonal di maître ki Kaba jël la mu bëgg mooy centre boobee euh, nekk ca Sébikotane ñu soppali beneen centre boo xam ne militaire ak ay paramilitaire ñoom ñoo fay nekk ñu ne loolee warta nekk ba noppi itam bërëb ba dafa nekk bërëb bu ndaw te xat Aïssatou Paye la yaa cérémonie. lëkkaloo diggante direction éducation surveillée bi nga xamante ne moo yore ndaw ñi ak direction bu administra ak direction bu administration pénitentiaire mënut nekk ñaari entité yi mënuñu demandoo ki ko xamle di amicalu éducateur spécialisé ba tax ñuy artu. dafa bëgg. deux cent militaires et paramilitaires ñëw bokk centre bi ak xale yi ak éducateurs yi te loolu yoon def ko sip yoon def ko bañ code de procédure pénal bu Sénégal article 55 et suivant moo ne mënul ne convention relative aux droits de l'enfant moo ne mënul ne ma ne sama collègue yi li ngeen war a def léegi mooy bind rapport circonstancié adressé ko président tribunaux yi leen joxul xale yépp à travers le Sénégal génn suñu espace pédagogique yi jox leen ko suñu xale yi fu ñu daan tëdd ci dortoir bi ñu génn xale yi mag yi dugg fa d'ailleurs loolu moo waral ñu jël décision nee na le dañuy génne xale yi waaw fu ñu leen di yóbbu. ndogal bi ñu jël li ñu gis ne mooy ne day violer loi bi. en tribunaux Sénégal yi bind modification de garde pour que xale yi génn foofu ñu yóbbu leen feneen ku ko deful ku ne yaa ngi def violation loolu la wax garde des sceaux nee ko nañu waxtaan mu ne moom bëggul waxtaan waxtaan da koy tardel jël na décision am da koy appliquer. waaw mais Sénégal nag réew ñëpp la ñun dañ ciy dox suñu wàll mooy alerte mooy xamal nit ñi que ñun en tant que professionnel de ce secteur la là ànduñ ci lu mu def mais retiendra ndax centre bi c'est un centre historique mu ngi fii depuis 1968. ñi nga xamante ne ñoo ŋànk yaru xale yi ñoom nag fu mu nekk nii pare nañu ngir waxtaan lépp ngir sàmm yelleefu xale yi Aïssatou Paye centre euh, boobee waral coow li nag administration pénitentiaire ba moom moo fa nekk ne ñu nag daañu génne xale yi euh, laata fukki fan ci weeru janvier atum 2017 euh, ñu wax ci abu euh, Aboubacry Mbodj moom nag ni ngeen ko xamee euh, daan xeexal ak ak yelleef doomu aadama dëddu na bàyyi fi way wu rafet maître Amadou Ali ànd ak moom ci liggéey la mu xam euh, ci naataangoom bi yoroon fi ay jamono rado nekkoon seen secretaire général nit ku baaxoon ku safawoon woon doomu aadama yi bu Diouf moom mii bokkoon na ci ñi ko xam bu baax doon ànd ak moom ci seen yëngu-yëngu maître amadu Ali Kane di delloo njukkal kii di Aboubacry Mbodj nekkoon fi tamit njiitu RADDHO waaw ñàkk nañu koo xamante ne daal xarekat bu mag a mag la woon euh, moom dafa nekkoon koo xamante ne intellectuel la woon cest à nit koo xamante ne nekkul sax koo xam dafa jàng rek mais nekk koo xamante ne euh, moom du nangu injustice. gannaaw laxoom avocat bi gis ne nag faatu kii di Aboubacry Mbodj dina fës lool ci seen yëngu-yëngu. ndax taxawaay bu rafet bi mu amoon ci seen xeex yu mu doon sumb. parce que nit mën na nekk défenseur de droits de mais bañ a nekk ku sawar mën na ko nekk aussi bañ a ami fit moom nag yëpp la boole woon yor xel yor fit yor cawarte loolu moo tax mu nekk ku ràññeeku ci biir loolu. gannaaw ba mu feebaree kii di maître Amadou Ali jotoon na sax dajale ab tuuti koppar. ñu jéggalu ci élément bi di ñaanal Aboubacry Mbodj yàlla xare ko aljana xamoon ngeen ko ci rédaction bi ndax saa yuñ ko mësaana woo mu wuyu ñu ñu koy jaale di jaale njabootam soxnaam. ñu wax euh, ci li nga xam ne moom moo xew fële euh, ca yoon wa jaar wetu Nabi Choucair jëm Patte d'Oie foofee nag xam ngeen ne askan wi dañu daan bàyyi passerelle bi léeg-léeg ñu daw jéggi njëkkanteeg woto yi loolu lañ ne dañu ko fiy jëlee ba tax na euh, dañu koy liggéeyaat liggéey boo xam ne képp ku fa jaar soo jaarul ca passerelle ba amaana di nga fa yàgg ndax doo gis ku la jàllale du Fall Younous Diatta yóbbu nit ñi ba ñuy jël passerelle loolee mel ni mooy saafara ngir moytu euh, ci yenn accident yu bëri ñuy nemmeeku fii ci hôpital Nabil Choucair bu Padoua faw ñu tabax ab barrière. assuré quoi dañuy protéger nit ñi quoi parce que ñi jéggi gaay bi moom c'est trop danger dañoo bëgg ñu jaar ci point bi quoi loolu moo ñuy arrangé moo leen arrangé. moonte nit ñiy jël tali bi xam nañ li leen ci mën a fekk wante ñoom jël tali leen gënal yéeg lii di passerelle bi. parce fii. demaat ba côté pont ba war a jàll yoonam mais bu nekkee beneen beneen beneen mu ngi côté bële da nga da mën a jaar si kaw kii passerelle bi nga mën a jéggi mais dox boobu nga dul ngay taayal quoi des fois sama genre yi di jéggi quoi mais du yoon moom. ma ñun moom dañoo dëgër boobu sénégalais man pour man même bu ñu defee ay fukki passerelle fii nii tamit di nga gis ñoo xamante ne dañuy jéggi moom. xam nga da ngay freiné keneen kii freiné day dal ci kaw doo bëgg doo bëgg a gaañ nit ki da ngay freiné te fekkee mu dal sa kaw loolu loolu mooy indi yenn accident yi woo. dañuy yàkkamte temps bi duñu permettre ñu yéeg ba passerelle moo tax ñuy jaar fii. ba tey ñenn jàpp ni jël tali bee gën a yomb ci ñoom ndax bu ñu jëlee passerelle bi ay mettit rek la ñuy yëg seen yaram. fii euh, mën nga am ay tànk ay yàq yu métteeg yu mel noonu ku mel ni man par exemple bu ma doxee lu bari damay am genre crampe moo tax je préfère jaaree fii sinon fi mu ma fa jaaree aussi ça me fait ça me fera de la peine bëri ñu gis ko fii. ci booru Nabil Choucair wante loolu taxul nit ñi découragé benn yoon loolu nag indi Ageroute mu amal ay barrières ngir fexe ba nit ñi di jël passerelle yi. ñu yegsi ci chronique gu aljuma bi niñ ko baaxoo di def saa su nekk Mouhamadou Papis Diaw benn tomb lay waxtaane tey taxaw sedd bi mu ngi eh, ci limub député yu ñu fas yéene yegg ko ca pencum ndawi réew ma. fukk ak juróom yeneen yu bees yu ñëwaat dolleeku ci li nga xamante ni moo fi nekkoon ci toogu eh, ñi nga xamante ni ñoom ñooy eh, député yi. hémicycle bi nag di dalal ñi nga xamante ni ñooy bàyyeekoo ci diaspora mi maanaam bitim réew loolu nag lu jaadu la bu ñu euh, fàttalikoo li nga xamante ni moo fi yees woote bi nga xamante ne sénégalais yi woote nañ ko ci ab référendum ci 20 mars 2016 mu bokkoon ci ponk yi nga xamante ni tolloo nañ ci fukk ak juróom maanaam dooleel député yi nga xamante ne ñoom ñoo war a représenter ñoom waa diaspora yi. mu nekkoon sax benn jàmbat lu ñuy yàgg di euh, ñaxtu di ko jooy ñoom immigré yi ba far ñu dal si li ko waral nag mooy dañoo yaakaar ne loolu mooy faj seen i ay jàngoro ñoom ñi doomu Sénégal yi nga xamante ni ñi ngi toogal réew mi wala it di ko euh, taxawal taxawaay bu rafet ci bitim réew kon nag lu weesu li nga xamante ni moom mooy laay boobu boobule ndax dafa légitime lu ñu jàpp ne lu askan bi nangu la ndax ci ab woote lañ ko jëlee gannaaw wote woowu nag laaj na ay laaj yoo xamante ni dañuy taxaw lan mooy solop taxawal ay député yoo xamante ne ña nga bàyyeekoo ca diaspora bi ñaari mbir ñett ba ñeent ci ay laaj yoo xamante ne mën naa sampu benn bi di est-ce que mbiru politique la leneen li ne est-ce que euh, soxla bu jàmp la li nga xamante ni moom mooy lim bi ndax ëppul Euh, téeméer ak juróom fukk yi nga xamante ni ñoo fi nekkoon est-ce que daan nañ def seen liggéey est-ce am nañ mbagg yu diis pour euh, doxal li nga xamante ni moom mooy mission boobule muy sax mel ni daal dafay am ñaari euh, catégorie wala it muy mel ni sax day nekk genre catégorisation ndax ñii dañoo bànqaasoo fële ñii mooy ñi nga xamante ni ñoo nekk ci biir réew mi bu ñu weesoo commentaire yi nga xamante ni moo ko lal ñenn ñi jëmee ko ci wàllu koppar yi nga xamante ni dana ko jar wala génn ci keesub Sénégal wala ñi nga xamante ne juste ay politiciens la ñu euh, di sóobu ci débat yi nga xamante ne ñu ni mel liggéeyub député moom euh, du soppeeku taxawaayam it warta soppeeku ndax benn la war a nekk mooy euh, xeexal li nga xamante ni moom mooy askan bi ko fa tàbb Euh, yokku fukki ak juróom député yooyu nag nag ñu jàpp ne dafay euh, fàttali benn euh, gis-gis ndax assemblée war naa xoolaat boppam li tax ñu dem ba bëgg cee dooleeku indi beneen fànn ci wàllu législation boobu lay nu jàpp ne nag ne am na beneen waxtaan boo xamante ni moom Barack Obama mosoon na ko waxtaanee di fàttali taxawaayu Afrique ndax nee na du ay nit ñu fort la ñu soxla waaye ay institution yoo xamante ne yu am solo la te yu am doole la donc assemblée nationale mbir mango Mamadou Papis Diaw ñu lay sant di la gërëm yéen tamit naka noonu ci safo bi ak kóolute bi rédaction bu télévision Futur Média jox leen dig daje fii ak ay simili yu néew ak Cheikh Tidiane Diaw ñu fanaan jàmm.